ginnaaw bu ñu leen sante yéen ñëpp mbooloo mi yëpp ginnaaw bu ñu leen sante ci turu jëwriñ ji sëñ Yankooba Gueye ak mbooleem koo xam ne rek moo ci fédération ci jëf ju rëy ju passeefu ji nga xam ni def nañ ko te taala lim ko léegi muy jëf ju wax dëgg yàlla kéemaane lool ci waxtu wi mu toll di jiijal cant googu nag sañ Cheikh Mati lay Mbàkke mi nga xam ni xëy na booloo gii bu amee tey ci loxoom la jaar wax dëgg yàlla mu dox ci passé bu ma sëkk ndax keroog bi ñu dajee de ku ko fekke woon wax dëgg yàlla gisoon nga ni tegoon na ci tànkam foo xam ni wax dëgg yàlla na mu doon waxe sax da ngay jàpp ni xëy na maamam ma ko teg loxo ndax bañu ci woon dara kon defe naa ni nammee lu ànd gi foofu la sokkee ko kon muy ne su ko bañ baral cant goo xam ni wax dëgg yàlla dañ ko koy beral di ko ñaanal nag mu gën a yàgg gën a wér ba mbooleem lii ay baayam ak i maamam naal ci yoon bi yëpp te def ko fi mu def ci lu kawe njortam ñu ngi leen sant yéen ñëpp nag di wax nag ne waar wi yoon wi nii rek la baaxoo mooy boo jëfee lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy da ngay gas ba mu xóot nga suul jéggi jëm ca kanam ndax dëgg la naam liñ fi leem de tuwaar fa kàlla ci diggante bi nga xam ne dajale nañ ko fa waaye nañu bàyyi xel la nga xam ne mooy nekk sañu kanam di jàllale passage boo xam ni li fi Moustapha wax léegi bu soobee yàlla moom loolu ñun danañ ko ko saafaraal te nañ koy saafarale lenn képp la mooy wutal kër sañ Touba fii ci dëkk bi kër kër guy dëgg te mu muy kër goo xam ne kër gu pasteef lay doon barki sëñ Saliou Mbacke bis bu ñu ko defee ambassadeur am ci dëkk bi ndax sëñ Touba ñëwal boppam loolu moom ñun ñoo leen koy fajal ñun murid yi barki sëñ Saliou Mbacke la koy amal nag la koy amal mooy faw nag personnellement personnellement ñu tàmbalee jaayante sañu biir wallaay la si li bi taa la wax léegi barki sëñ Saliou Mbacke bu ñu ko jëndee ay béton suuf fii ci dëkk bi buñ la nee lii ngeen jal moom moom ngeen dajale woon ñun ñëpp dañ koy xeex dëkk bi seeni bagage dafa seer te château la ñu bëgg a tabaxal Serigne Touba pàq bi ñu jënd hectare la du benn de juróom benn pàq la ndax ñeent lañu waxaale woon murid yu xëri daal ne nañ ci dolli ñaar ndax dañoo bëgg juróom-ñett dañoo bëgg bu oto yi dee ñëw di dugg ci biir kër gi ñu wurmbal kër gi ba nga xam ne buñ ko doon xaar comme ñun dañoo ëppal kenn du ñu dégg loolu lañ leen jëndal barki sëñ Salim miir bi nga xam ni moom lañ jàppa tabax fi mu nekk nii rek nga xam bu buñ jugee ci lii dañ cay wecceeku lépp dollar bu subaa ñu wuti albanil waxaale moom miir wurmal boobu rek barki sëñ Salim lii ñu fi dajee yëpp miir bi ñu bëgg mun a xaaj miir bu ñu xaar nag ba année prochaine bu ñuy woote fédération déedéet jaayante bi tàmbali na bat suñ Saliou ku mun camion béton suuf béton suuf parce que sëñ Saliou boo ko waxee fii dañ lay bind boo ko fi joxee suuf lañ lay yóbbu duñ fi ne sax di laaj xaalis suuf bi nga wax la ñuy dem ba ca pàq ba ñu teg ko fa waaye nag yoon wi xaw a dee moo ciy maye dara barki suñ Saliou képp ku ci bëgg a raw sa morom ren ba déwal tàmbaleen léegi bul xaar kenn fu weer wi deewee làmbal li ngay làmb woo taala Sall jox ko mu bindal la nga def sa poos barki sëñ Sall balaa ren di déwén nga raw say maas te nag nañ xam ni bu wér ni ni ko borom xam-xam yi di waxee rek jëlee naa sax sëñ Tuubaa ñaan gi mu ñaan ne sëñ borom na ko defal jum këram yëpp taxaw taxawu masjid waaye ñun loolu dañ kaa war a teg fële xool sañu diggante ak sëñ Tuubaa li muy def ci ñun at li ñuy am di ko askanale at li fi taalalim léegi man de bi ko taalalimee ma xayaasaat sam bopp xalaat li ma ci def. barki sëñ Saliou 5 pour cent def moo ko ci loolu rek mooy wane ni ànd doon benn rek moo am solo te xoolal liy jëf di tool amul kenn ku ne ci saal bi rek ku mën a ne def na ci 5 pour cent déedéet waaye benn benn benn benn yi moo jur lee kon na kaay leen ñu ànd te jëm yàlla ji rek tax waaye nag mu dem ba ñu miire def fondement yëkkati nga dem fa màggal wala bisu xasaay ni ko gaa ñi lime nekk ci biir barab bi. te wallaay lazim sa dërëm dugg ci murit bu mu dal rek wallaay lazim seetaat na sa bopp bu demee ba yegg ba mu leer ne ay milliards a ci dem nga seetaat sa bopp te xam ni maanaam defoo ci 1000 peso wala 10 000 pesos wala 100 000 pesos seetaatal sa jëmm ji barke sëñ Saliou ku la ne maa la gën a sëñ Tuubaa bu ko werantee dóoral sa bopp ci miir rek te taxaw yoon bi yoonu jaayante la te ñi fi am dara ñëpp wóor na sëñ Tuubaa bu dee ak ndoonu la nit xaw naa dee moo tax sa di am dara. kon nag ñu ngi woote woote googu ñun ñëpp ay jeunes lañ ñu ñëpp ay jeunes lañ léeg-léeg ma wax ko nag mu mel ni leneen waaye day dëgg bu ma jaayulee mu bañ a dox walaay la jim ku ma woo Sénégal dana lekk sama ñaar fukki junni te yu garaaw la koy def yoo xam ni amul sax mucc te mooy bëy bu weex bi may wax wala nag bu ñuul bi rek te sëñ Tuubaa gën a gaaw ñoo ñëpp barke sëñ Saaliw ndax moo ñu moom moo ñu def ci jibaam yooyu yëpp mënut a yegg ci jibu jiba sëñ Tuubaa ndax daawul dox ci bidaa waaye la gën a gaaw nag mooy joxe àddee te jëm yàlla ji rek tax kenn du mën ci yow dara wax jey bari rek wala wallaay la jëm fu la waaye seen ci kanam la leen seen waaye du la seen ci ginnaaw barki sëñ sa te dëkk bi am na fi de am na fi xam ne barki seexul xadim dañ leen di seen rek waaye duñu xawee ku mukk ndax la ñuy def daa dëgg ci ñoom dañ koy def te jëm yàlla ji rek tax doonte dërëm lay doon kon ñu bàyyi ci xel ñun ñëpp bisub xasaayida bii ñoo yax ne bisub xasida gi dañoo fas yéene def ko fii ci capital dañ ne woon dañ koy génne waaye dañoo mujj def ko ci capital kon ñu ngi koy yëgal mbooloom yëpp bu soobee yàlla danañ ci def danañ ci def danañ ci def passé kon xam naa ni comme tollu na fii dañuy dañuy fexe rek jo jox sëñ Cheikh bu ko defee mu wax ñaanal ñu bu sëñ bi ñëwee ñu dox ci lool kon ñu ngi gërëm ñëpp di bàyyi ñëpp comme sang bi daa ñëw.